réew mi de kenn du ko yëngal bu soobee yàlla dinañu dakaar seen ndey la première bala 30 pour ñu xam ne yàlla julli la santaane Bougane Gueye ñaata personne la àndal ñi topp Bougane Gueye daan ne matul ñu sax 20 <laughs> man de damay ñaan yàlla suñu borom rek Bougane Gueye yàlla nañ ko yóbbu garde à vue nañ ko dugal garde à vue nag bàyyi ko fa une semaine ñu xool ñoom lan lañ ci mën ñoom matuñu sax 30 person ah pour lan la loolu. ñoom Ngoone Saliou lan lañ leen def ñoom ay journaliste lañu dañuy liggéey ndëgam bi mbir mi mettee ba métti diggante Macky Sall Ousmane Sonko bi mbir mi tàngee ba tàng ñoom dañuy xuus def seen liggéey waxatuma ak tey tey tey Bougane nga xamante ne trente personnes mënu koo dajalee ñu bëgg a fàtt nit ñi di tànkal nit ñi Bougane ngay làmmiñam rëy na ba pare bukkat la tàppet bu mag ku koy wër jàppal Bougane koo xamante ne buy dox taatam tuunam gi comme si ku poose taat comme jigéen bugaan boo ko ne na nga def sax mu commencé di jooy yow munoo bugaan munul jiite Sénégal day toog xaar munul jiite Sénégal fii la taxawoon di expliquer naan man sama yaay yaruma sama maama ma yar xaw ma nag lan bugaan jooy na ci bay bëgg a dee jooy na ti ba tëdd. langue politique gii nag moom ku opté ne da ngay dugg ci làng politique moom na nga pare de tous les te xam ne à tout moment lu ne rek mën na laa fekk si waaw moom li ay moroomam daj ci langue politique gii moom Bougane gay Dany jenn wàll gi sax dajagu ko ci moom na préparé wu na takkuwaat ba dëgër te xam ne langue politique bii du yomb ba pare Bougane gaaw na mer Bougane day saaga Ousmane sonk lan lañ ko fi waxut ci langue politique bi lan lañ ko fi waxut waaye ku mu sa dégg Ousmane Sonko taxaw di saaga ñun kay ñun waa Pastef ñun ñooy xool ku saaga Ousmane Sonko rek ñu delloo la ko ba mu neex ku ñu ko timbax rek ñu mbax la ko ba ba di ko santiir waaye Bougane day saaga Bougane xolom bi ci weyam bi la xol bi nekk Bougane mënul jiite Sénégal day làmbatu waaye bu tàngee ba tàng ci gatam googu dina xooli leneen lu muy def te nag moom dafa war a góor góorlu nag fay alalu sénégalais na fay impôt ba pare na dem fay ñu mu amel xaalis ci jooni jooni bi na lijjanti loolu ba pare ko am leneen lu muy wax bugaan moomul ñi ñiya ah. te na dem lijjanti nag ay moroomamu géwél nag ay mbokkam na dem lijjanti fu ñu ne ndax ay mbokkam ñoo ñi ndar gii di daw ay mbokkam comme si bugaan xamul na dem lijjanti loolu ba pare lu Birima waxoon rek ndax Birima waxoon na ko bu mu fontoo nit gënul nekk fii kenn sénégalais te Bougane du mun a sax sa politique parce que Bougane léppam day triser Bougane bu jénne di def conférence de presse wala bu jénnee war a war war a war a wax dee leen seetlu Bougane ci Ousmane Sonko lay copier li Ousmane Sonko doon wax démb ak barki démb xam naa Bougane bu paree pour wax ak nit ñi moom day ak ay nitam day dem dégluwaat vidéo Ousmane Sonko yi daaw ak daawaati jee ba pare doog a ñëw toog di wax day copier. nit ki boo bu dee ni da ngaa opté nekk politique nekk politicien rek yow fexeel ba créer sa yëfu bopp fexel ba na nga demee ak sa njàmbaarte fexeel ba na nga góor di génnee sa yëfu bopp mais Bougane lu mu fi wax A ba yëpp ci Ousmane Sonko la ko copié di ay réew mii bu dee dalaa jaral nga yàq ko ding ma rey mbaa rey la waaw loolu yëpp dèjà Bougane loolu yëpp oh, man c'est que Bougane dafa amut ay conseil amut ay mbokk ba pare mu ñàkkaat ay conseil su fekkente ne kalaas ñoom euh, euh, Assane Diouf ñi mu àndal nga xamante ne Assane Diouf nga xamante ne bopp bi moo peer xamatul fu muy taxaw xam ku màndi moom depuis bi ko Macky Sall indee Amérique euh, riigal ko Sénégal xamatul fu muy taxaw tey mu ngi fii suba mu ngi fii gannaaw suba mu nga fa ñoom dañoo war a régler te defar seen toogaay te xam ne ñoom du ñu waa Pastef te waa Pastef du ñu ñoom te àdduna du ne ba ñu nekk waa Pastef ndax waa Pastef ñoom dañoo miin terrain bi. dañoo nangoo ñefe dañoo ñeme lu metti ba pare nag dañoo ñeme naaj ku weddi na laaj police yi waaye gàngoor gii ma gis nii politicien ñii ñu bees ñii gàngoor gii may gis nii kenn ci ñoom ñemewut coono waxatumaa seeni militant kenn ci ñoom ñemewut coono waxatuma seeni militant ndax ñoom dañoo tàmbal seen i militant toog leen mu dox ñuy tibb xaalis ñu ñu ñu di jox seen militan militant ñu ñu leen di defar xeetu ñaaw téef ak ay saaga ay faux compte loolu ci ñoom la am waaye Pastef patriote ñoom dañuy wàcc si terrain bi ku weddi laajal Macky Sall <laughs> ku weddi laajal Macky Sall réew mi du ñoom ñoo koy yëngal parce que gisuma kenn ci ñoom ku koy yëngal ñu yore tuunu jeeg dong ñoo nekk ci seen seen ñoo ñoo nekk ci seen gàngoor yooyu noonu. donc ñooñu mënuñu dara ak ay maire ñu xeesal barate dañoo xeesal barate ñoom ñoo leen dar ni dar mendra ñi nga xamante ne bu police taxawee dëgg sànni benn grenade rek doo benn grenade rek doo gis kenn ñoo leen dar ni dar mendra dañuy toog xaar Pastef du ñu ñeexu ñebbe kenn Pastef bu taxaw rek <laughs> Ali Baba Coumba Naar dañuy xaar dara du yëngu man damay ñaan yàlla bu gaan nañ ko nañ ko yóbbu garde à vue téye ko fa une semaine ñu xool lan mooy xew dara du ferge kenn waaw yow yoroo sax lu ma trente personnes nga nga nga ngay wane reewande ah pour lan loolu ba pare ñu mu àndal ay vrai nervi la àndal ah ñooy taxaw nee nañu tey ah, waaw ñoom Ngoné Saliou ñoom ñoom ñoo nekk journaliste Ousmane Sonko yi ngoone ñoom ngoone Sall bi mbir mi méttee ba méttee ak wàllu fajri ñoo nekkoon ci terrain bi ñoo ñooy jox nit ñi information yu leer yi ak patriote yi yore seeni téléphone def ko télé. ah waaw di Bougane Gueye moom yor na si maanaam yor na téléem yor na léppam mais moom lu ko neex la ñuy def lu ko neexut duñ ko def moom moo leen di sant yéen nii ah waa kay waa kay léegi nag dafa jot ñoom ngoone Sall nañ dem porte plainte seen ndey. bu jaree ñu tëj seen i ndey ca kaso ba tëj leen ba damm caabi ji point barre amul leneen waaw parce que ñii ay màgget lañu ay maire ay maire lañu ñu bëgg a nekk ci réew mi di tànkal ñi ñi ndax dërëm fukki dërëm ñaar dërëm dañuy xaar ba retour ñaf seen day jot na nag wax dëgg fa yàlla ñaf seen day jot na ba pare nag bugaan bu wonnee ba tuunam gi di senn bu taxawee ne Ousmane Sonko man damaa ragal bugaan gee dane bu tëddee day jënti Ousmane Sonko ay militant ak ñi ko bëgg a dëgg nañ ko conseillé nee leen ko na dem takki jabar te bàyyi di rêver Ousmane Sonko lu muy rêver Ousmane Sonko ëpp na bu yàggee nu mu ni Ousmane Sonko di doxee noonu lay doxee waaye nag du mun a doon benn ndaxam xam nga lu tax parce que Bougane Gueye Dany tànk yi dafa gàtt Ousmane Sonko ab njool la bu sànnee benn paa rek sànni ba ca des rek egg na fu mu jëm te Bougane buy dox comme jeeg waaw di xuutari xuutari di xaabar xaabari doxin jeeg la Bougane Gueye la Bougane Gueye yore. kon moom du mu sa doon Ousmane Sonko Ousmane Sonko liggéeyantiw ko faalewu ko xamul ko ne Bougane ngee mu ngi existé moom moo nekk di toppandoo Ousmane Sonko bëgg di wax di Ousmane Sonko di waxee bëgg na nañu jox visa am vrai visa am nañu ko jox. bu dëgg-dëgg day politique Bougane dafa war a teg fee visa Ousmane Sonko te mu indi vrai visa am dëggal boppam ci jéew bi mais lépp lu moo suba ba ngoon bu Sonko du mën a jàmm quoi parce que Ousmane Sonko moo loolu la yàlla def nag ci Ousmane Sonko ah. ku ko laal ku ne rek am bës ku bëgg a wax bëgg ñi ñi déglu li ngay wax foog nga tudd Ousmane Sonko bëggaan na toog barki dem Ndiaye la fi taxaw fenn fenal fi benn ministre fenn ku tooy xet te kooku yàlla xam na ne kooku booba moo ngi Amérique ak jomaay duur duula ngu tooy xep kooku génn démentir ko ci mag bu tool ni moom yéen ñi kenn ku ne war nga koo bañal sa bopp bugaan na imposer sénégalais boppam na proposer sénégalais boppam te dëggal boppam waa ci terrain bi loolu la ko ñu ñi sant mais koo xamante ne yow looy wax lu ne rek foog nga indi dem seetaan ay vidéo jàmbur yu daawaati jë yu daawoo ba pare nga doog ñëw nag indi say wax di ko toppandoo pour la loolu na bàyyi imité bi imité bi la Bougane Gueye Dany war a arrêté waaw te wan sénégalais vrai visage am loolu mooy politique loolu mooy politique ñoom xam nañ ne instant bu ñu sañoon tey ñoom ñëppay daw dugg Pastef waaye ñoo lànk ba ut ku ñu lànkle wax kay loolu la yàlla dogal ñun dañu ne waajal leen élection yi bu leen neexee maanaam parti nekk Sénégal yëpp ngeen boole ko mu nekk benn ñun Pastef ñu dem ñun kese dinañ leen ñuus ba yegg seen kaw di puudaru waaw xam ngeen ko sax moo leen teree nelaw waaye bañ bëre nangu bëre ah waaw waaw te nguur gi nag de maanaam jël leen seen temps nee naa leen fii ba vingt ans trente ans ñu ngi ci nguur gi du yomb de. balaa ngeen tegaat seen loxo yi seen loxo yi ci nguur gi nee naa xanaa mu nekk seen i doom mbaa seen i jarabaat waaye du kalaas mbankaan yi may gis ñuy tere ne nii ah déedéet waa kay